alhamdulilah saaga moom bokkul ci liggéey bi saaga moom baaxut ak ci kuñ ko mën a jëmale rawatina bu fekkee ne saaga dañoo wax ne ci kilifa la jëm loola baaxul ci aw làmmi baaxul ci ay réseaux sociaux baaxul ci télévision baaxul ci fenn foo xam ne fu ko doomu aadama di waxe la loola mooy li ci jëkk ñaareel ba moo di ñan ñooy saaga lu gën a bari ñooy saaga day dañuy làqu fi béréb boo xam ne yaakaar nañ ne fa ñu nekk kenn jotewul ci ñoom moo tax ñuy saaga loola mooy seen njort ci la ma jàpp ndax kat bari na koy saaga wala muy yónnee sax ay saaga te fekk su jàkkaarloo woon ak ka muy saaga du ko saaga kon kooka dafa jàpp dafa làqu waaye ak làqu googee làqu moom dafa taxuta raw su fekkee ne ña yore wàllu sécurité am réew jublu nañoo teg loxo ka làqu ca gannaaw ab téléphone walla lu ko nuru di saaga suñ ko bëggee teg loxo loola du jafe ci ñoom waaye ànd ak loola yooyu yépp boo ko tegee ci suuf dafa am leneen lu gën a rëy loola mooy ñii la sa boroom booreel nga xam ne say wax rek li ñuy déglu ak say jëf kero ba nga nekkee mu kàllaf ba kero ñu lay denc ci bàmmeel te doo tàggoog ñoom nag foo mën a dugg fu ne loo def lu nekk ak loo wax lu ne ñu ngi koy xam kon ñooñee ñoo mat a teewlu seen mbir mu war a jur ak ragal yàlla goo xam ne day feeñ ci ay cër feeñ ci aw làmmiñ ba saaga du génn ci sa làmmiñ bi jëm ci nit làmmiñ dafay responsabilité yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax na muaz ibnu jabal ne ko li ëpp ci luy tàbbal nit ñi sawara mooy làmmiñ kon làmmiñ doonut lu woyof yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na nit ki dana wax benn baat ci aw yiw xeeb ko ndek baat boobee moo koy tàbbal ajjana nit ki dana wax ab baat ci aw ay xeeb ko ndek baat boobee moo koy tàbbal jahannama wala yaas billah kon wattu aw làmmiñ wattu aw làmmiñ dafa bokk ci diini ji man kaana yuminu billahi wal yawmi al falyaqul xayran aw liyasmut koo xam ne gëm nga yàlla gëm ne ëllaaxiraa ngi yow maanaam da ngay faatu te boo faatoo dañ lay suul boo suulee da ngay dajeeg malaayika yi da ngay sa boroom dañ lay atte nga dem ca sa kër gu mujj ku gëm loola nee na waxal lu baax soo mënta wax lu baax nga noppi kon loolu mooy li ëpp solo ci bunt boobu ci loo xam ne ab jullit war na ko bàyyi xel ak fu mu mën a toll na xamal yow jullit bi ne soo wéetee fi béréb wéetoo soo wéetee wéetoo lu mat a bàyyi xel la beneen ba moo di ndax am na ay kilifa yoo xam ne saaga yooyu dañ caa bokk wala ndax dañ koo rafetlu déedéet jàpp ma ne am na genn kilifa diine moo xam ci këru tariixa la koo xam ne ku respecté boppam la ku am responsabilité fa mu nekk la koo xam ne gërëm loo na kenn ku nekk ci gannaawam di saaga nit amut loolu amut ndax seeni xel weesu na foofu waaye seen diine it war naa weesu foofu weesu na ko sax ndax kenn nattablewul ne ki bokk ci diine saaga diine jàmbur sax kooku mu ngi saaga diine boppam yow mi gëm yàlla mu màgg mi sax di saaga ki gëm bant bee mu samp yow yaa ngi saaga yàlla mu màgg mi loolu ko alxuraan waxe nee bu leen saaga ñële ñuy jaamu ndax su ngeen ko defee ñoom jaamu ko te xiram yi kon danañ saaga yàlla yonent bi nee na bu kenn ci yéen saaga ay waajuram ñu ne ko nit mi saaga ay waajuram mu ne bu saaga waajuri jaamur ci saaga waajuram loolu moo tax amul genn kilifa diine goo xam ne kenn mën naa def ci sam xel ne nangu na doom di saaga nit ba wëlbatikoo ci kilifa yi nga xam ne mooy association islamique yi wala ñi nga xam ne ay droite lañ leen di tudde wala ay imam wala yu mel noonu nga xam ne yor nañ benn responsabilité ci dëkk bi ci réew mi bu ñu waxee ñaari nit leen dégg wala ñett ñi ma ci xam de amu ci kenn koo xam ne da gërëm loo am kenn ku nekk ci sa gannaaw di saaga aw saaga jëme ko ci nit li ma dégg sax ñi di ko wax mooy képp koo xam ne dañu la saaga sax yow bul tontu na muñ soo duggee sax ci ab groupe dégg ñu fay saaga wala ñu fay werante sax yow génnal group boobu dénkaane yooyu day moom laa mos a dégg ñu di ko dénkaane kon nag su fekkee ne ay saaga mi ngi am jàppal ne ñu të ñu të ñoo bokk daje fi ay birëb di saagaante ñoo toog fi benn birëb di saagante loola nag euh, lu war faju la loo xam ne ñëpp ci war a taxaw faj ko ci wax ak ña ko faj mën a faj ci jëf mu état mu jéem a xool yan yoor la ñu jaar ba loolu moom dakk jóge fi ndax baaxul ci sunu société gënul ci wenn askan ci àdduna woo xam ne askan wa dañuy jaamaarloo di saagaante di xasante di liggéey ci seeni moroom kenn ku nekk di fexeel sa moroom déedéet loolu moom jëmaliwul am réew kanam te itam suqaliwul aw askan te it jagalul ak dund te itam andiwut jàmm